maa ngi leen di nuyu di wax ne projet Paris li ko tax a jóg mooy li ñu wax développer irrigation parce que xam nañ ne Sénégal dëkk bu yaakaar ci mbay la pour développer te gis nañ ne lu ci ëpp nawet rek la ñu daan bay te xam nañ ne ndox mi bari na Sénégal muy ndox mi ne ci suuf comme ndox mi ne ci fleuve yi même ndoxu taw bi kon li tax a jóg projet irrigation yi mooy ñu yokk temps bi ñuy bayee cest à ñu mën a bay at bi yëpp waaw su ko defee dañuy mobiliser ndox mi ne ci suuf ak ci fleuve yi pour que année bi yëpp agriculture yi mën a def mbay kon loolu moo ko tax a jóg waaw voilà donc défi bi mooy effectivement ñu mën a bay année bi yëpp te loolu mën naa wax ne une des fonctions principales lu irrigation loolu la mais leneen li am aussi mooy dañoo gisoon ne euh, lëkkaloo bi dafa xaw a des ak waxtaan bi te xam nañ ne mbay moom li ko mën a yokk mooy nit ñi di waxtaan parce que bu ñuy dérouler projet yi dina am ay réussite il faut ñu mën ko capitaliser waxtaanee ko. mais aussi dina am ay ay échec dina am ay ay ay problème il faut aussi ñu mën a waxtaane problème yooyu su ko defee bu ñuy defaat projet yi ñu éviter di répéter même erreur yi kon daal mën nañu wax ne défi bi nga xam ne tey sax moo tax groupe bi jóg mooy ñu mën a boole nit ñi nga xam ni ñi ngi liggéey ci irrigation pour ñu mën di waxtaan ak di échanger ci seen i pratique. alors ci yenn zone ci yenn zone yi moyen dafay manqué souvent am na zone yu bëri yoo xamante ni moyen day manqué bëgg nañ irriguer waaye duñ am yenn jumtuwaay machines yeeg carburant yeeg yooyu aujourd'hui lan ngeen di wax euh, population yooyu. waaw loolu lu am la waaye tamit euh, mën nañu reconnaître que ne état du Sénégal à travers ministère agriculture je pense que def na jéego yu rëy ci dimbale baykat yi ci matériel agricole léegi nag projet wax dëgg yàlla li état bi di def te loolu projet bu mel ne Paris looloo ko tax a jóg ñun dañoo bëgg di mettre en place ay réseau waaw réseau irrigation ci biir tool yi su ko defee ñu permettre baykat yi di bay année bi yëpp et am na yeneen projet aussi yoo xam ni loolu moo leen tax a jóg su ko defee ñun ñëpp ñu boole suñu doole waxtaan ci cadre bu mel nii. ci yan pour ñu gën a am impact. ci waaw zone yu intervenir ñi ngi ci noor bi ci vallée fleuve Sénégal di ànd ak SAED foofu ñi ngi ci centre bi aussi bassin arachidier ak euh, ANIDA ak direction des bassin de rétention et des lacs artificiels ñi ngi aussi ci sud bi en Casamance ak Sodagri. ñu est-ce que mën ngeen ñu wax euh, parce que ñunu ci première phase u Paris bi suñu ambition mooy ñu irriguer lu toll ne lu ëpp ñetti junni hectare actuellement commencé nañu liggéey bi ci vallée fleuve Sénégal ñu ngi actuellement di irriguer 1200 hectares loolu liggéey bi commencé na. mi ngi mi ngi avancé bu baax fu mu toll ak fan ngeen ko bëgg a yóbbu waaw loolu laa waxoon mhm. ci phase bi ñu ngi ci trois 3000 hectares bu fekkee li ñu def wax dëgg yàlla dem nañ ba gis njariñ li dinañu amaat yeneen phase yi nga xam ni dinañ yokk superficie bi mais daal li ñu wax mooy li ñuy irriguer ci Sénégal dafa néew waaw ñu ngi naan moins de 10 pour cent te nag boo bëggee yokk mbay mi dëgg dëgg dëgg il faut nga dem au-delà cinquante pour cent irrigation waaw fas bi ñu toll mooy comme li ma wax am na commencé nañu liggéeyu aménagement yi déjà ci vallée fleuve Sénégal bi sur 1200 hectares au niveau Casamance ak Sodagri euh, on a lancé le processus de marché ba sélectionner entreprise yi nga xam ni dañoo war a liggéey foofu foofu ñu ngi ci environ un peu moins de 1000 hectares yu ñu fa war a def waaw ak aussi réhabiliter barrage Diopkounda xam nga mas ngeen ko dégg barrage bu am solo la waaw ci zone bi. tur bi présentation bi parce que ko. waaw man maa ngi tudd Ali Sané Niang national projet d' appui régional à linitiative pour l' irrigation Sahel Paris.